bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin mbokk yi del siwaat nañ ànd ak yéen ci plateau bi euh, muy ñi nga xam ne ñoo koy taxawal di seen euh, muy comité bi ñuy tuddee rawdu rayahin di ànd ak yéen di dalal gan ñi ci màggal Touba euh, ñu ànd ak yéen ci tey benn tomb boo xam ne tomb bu am solo la ci dimension màggal Touba ni mu amee ni mu taxawee ci wàllu diine ak ci wàllu social tey nag ñu ànd kook suñu ñaari mbokk yoo xam ne xam nañ leen lool ci wàllu jàng ak jàngale waaye xam nañ leen lool ci wàllu société bi ci jeexit yoo xamante ni ñu ngi koy taxawee ci li nga xam ne moo di réew mi euh, ki nga xam ne moom farek sama ndeyjoor ñu koy wax suñu Mbàkke Abdourahmane euh, ki nga xam ne moom fare sama wàllu càmmooy ñu koy wax suñu Seex Mbàkke ñang euh, inspecteur ñoo bëgg a ànd ak yéen tey ci waxtaan bi su ko defee incha allah bala ñuy sori rek dañuy bàyyi suñu Mbàkke Abdourahmane mu nuyoo ak yéen sëriñ bi bismillah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 salaatu wasalaam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ñoo ngi nuyu mbokk yi ànd ak ñun ci jotaay bi ci biir réew mi ak ci bitim réew ak fu fa mën a toll di di leen ziare ñoom ñëpp di jiital ci ziare bi sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te te ma ànd ak wér ba mu mën a eggale liggéey bi ci ànd ceeg mboolem taalibe yëpp macha allah. jërëjëf sëñ Cheikh Mbacke Niang ci kàddu yooyu dañuy dem ci suñu mbokk suñu Mbacke Abdourahmane ndax dañoo seetlu ne màggal gi léegi dafa am benn dimension boo xam ne apporte na ko ci wàllu diine muy loo xam ne lu am solo la lu ñu nemmeeku ci jamono ji nga xam ne moom la ñu toll sëñ Mbàkke Abdourahmane euh, bu ma doon laaj tey ban rôle la màggal Touba am ci wàllu diine loo ma ci tontu. Euh, jërëjëf sëriñ Babacar euh, taxawaay bu màggalu tuubaa am ci diine mën naa wax ne lu yaatu la waaye mënees na ko tënk it ndax màggal gi. dara da cee génnul diini jaam buy sant yàlla la te sant di ponk bu mag ki biir diini yàlla di ci gërëm ay nit di ci jëpp ay nit ñaxtu na ne ñëpp ci jaam ñi duñu sant ba di génne ne ku sant ma dolli ku goree di maa ngi koy nekk ak sama mbugal kon jaamu yàlla la te màggal gi sant yàlla la kon jëmmi xew-xew ci boppam ak jaamu la kon diine la diine nag euh, soloom bokk na ca lépp lu mu digle rek bu ko nit ñi dafee nañ ko digle njariñ dong cay juddu waaye lor ci am ba sëriñ mag bi sante santaane ñaan ci taalibe ñu jàppale ko ci santale yàlla ci bisam bi ba ba tey ñëpp xam nañ ne day dolliku ci anam gu ne diine di ci jariñu ndax ginnaaw mbir mi diine la woon nag bu dollee koo jëm kanam diine ci gën a jariñu mm-hmm. moo tax euh, lu mu amal diine moom mën naa wax ne léppam jariñu diine la xëy na ci faram mën nañoo tudd ay ci biir waxtaan wi waaye daal lépp lu lu ñuy def ci biir diine ci gën a jariñu ndax moo ciy boole aw xeetam moo ciy tasaare am njàngam moo ci bàkk ay jàmbaram mm-hmm. moo ciy fàttaliku ay kilifaam waye di ci dundal ay baram kon leppum diine ci jariñu su ko defee nak ci teqental man nañoo xol yenn bi ci ëpp solo moy ben gi muy benn la julit Touba légui xew-xew la bo xamné ci Sénégal man nañoo wax né moy bërepp benn bërepp bo xamné dana am bis bo xamné ci at mi bisu magal gi këri diine yi këri diine ñëpp danañ fi teew ñi yëngu ci lislaam day association wala euh, euh, organisation islamique ñëpp danañ fi teew lu seeni naanuwaayu wuute lu seeni tànkuwaay wuute wuute baatub lislaam boole na leen ci màggal gi te loolu jàpp ma ne am na feneen fu muy am ci anam bu demee noonu benn béréb jur ñëpp bokk toog ci benn jataay di waxtaane loo xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk te at mu jot màggal Tuubaa di dajale lu toll noonu bari na ci ay kilifa yoo xam ne fii lañu xamante bokk daje dend ab dal mbaa ñu bokk dal ay relation juddoo ca ba yu bari juddoo ca loolu diine ko santaan ndax diine diine benn la diine li muy woote mooy euh, tawxiidul kalima taxta kalimati tawxiid fexe ba ñëpp nekk benn nekk fi nekk ci li yàlla bëgg loolu li ci màggal gi taxawee taxawaay bu réeréel boo xam ne wet goo xool gis ko ci dolli ca nag xam-xam bi fi juddoog at mu jot am na mbokk mu ko mos a a wax fi wane ne saa bu ñu màggal see Tuubaa bu ñuy dellu yokk ci xam-xam loo xam ne ba déwén danañ ci mën di dund loolu kilifa gu mag koo xam ne yëngu ci waar wi ci xam ak jàngale moo ko fi ginnaaw dañuy def ay waxtaan di ko tënk ci ay téere nit ñi di ko déglu bu ñu jël ko yóbbu loolu diine ngi ciy jariñu njar nga ñaaw yu bari bari ndax jàngaleem mi ngi ciy gën a leer amaana koo xam daan na dégg yoonu Sëriñ Tuubaa dégg murit gi du xam lu mu doon. mën naa am sax mu gis ñoo xam ne ñu ci ñoom lay xamee murid gi te mën naa am ñooña doxewu nañu war a doxe waaye boo jotee nag ci mbind yi ñu waxal la li borom waxoon fi mu ko tegoon loola jàpp naa ne ci wàllu diine it yoon wi euh, màggal gi joxe na ci liggéey bu am solo solo euh, ci ci ci ci fexe ba nit ñi naw diine it ndax diine ci naw ndax xew-xew bu toll nii ñëpp dëgmal ko. léeg-léeg dara xew nit ñi di tiitloo nit ñi di leen xupp mel ne dem wóor waaye day mel ne day gën a xabtal nit ñi loolu diin rek ku man loo xam ne da gëm sax ne bu ci sa des jaral na la koy demal ndax gëm nga ne boo ci faatoo yi njariñ la doon ci yow engagement yu mel noonu bu ko réew yi amoon diine jëm kanam maanaam li ñu jàmbat ci àdduna saafaraw loolu lépp damay jàpp ne sëñ Babacar njariñi diine la yoo xam ne mën nañ koo tudd fii. macha Euh, su fekkee ne xam nañu ne euh, borom màggal gi da wootee pour santale borom bi ci jëf ji nga xamante ne moom la ko faye mu mel ni askan wi du ko wuy si ci sant googu ay xeet yu bëree bëri di fi dajewoo mu mel ni kon waa kër diine yëpp dañ fi dajale su fekkee dégg nañu Sëñ Mbàkke Abdourahmane wax kon Sëñ Seex su fekkee ne doomu aadama ñu ngi daje ci màggal Touba ci façon kër yi diine yi ak nu ñu wuutee ci mel ni pénc kenn ku ne mën a jëriñeen sa morom kon ci wàllu ijtimaa yi euh, lan la ci màggal Touba di apporté jërëjëf sëriñ Babacar ñoo ngi yeesalaat euh, ziyaara bi jëmale ko ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci jotaay bi di rafetlu fi jota a jóg ko ci sëriñ Mbàkke abdourahman muy yu rafet xam nga xew-xew mbooloo mu nekk ñu bokk lu ñu gëm euh, du ñàkk léeg-léeg ñu war a am bis bu ñuy daje te euh, daje boobu day am ay jeexit ci anam yu nekk dana am ci wàllu diine ni ko sëriñ Mbàkke waxe dana am ci wàllu social dana wàllu am ci wàllu koom-koom muy économique ak yeneen ak yeneen wàllu goo ko xool mu am noo ko gisee boo ko wëlbatee ko xool ko ci bicares mu jox la leneen bu dee ci wàllu social bi ngay laaj mooy jëflante diggante nit ñi e, màggal gi da cee am taxawaay bu ama am solo nuroo ci sax ak aj màgg du ma ne aj màkka la waaye dafa nuroog moom ci ay jeexet yu muy am ci nekkeenu doomu aadama yi xam nga ni yàlla bi mu indee lislaam euh, dafa daf leen a nos ngir ñuy bañ a fàttante ngir ñuy bañ a sorente ba tax mu tëral leen leen ay xew-xew ak i bis yoo xamante ne dañ cay daje muy mu muy tàmbalee ci lu xat di gën di yéeg ba gën a yaatu boo ko xoolee jullik àjjuma ñu bokk benn dëkk wala bokk benn quartier wala ay quartier yu dëkkandoo ñoo koy def ay bis gu nekk nga xool at mu jot jullit ñi di feetu euh, di di di julli korite ak tam ak ak euh, tabaski waaye loolu ci réew mu nekk ak dëkk bu nekk mu gën koo yaatal nag dendub àddina bépp ci ay jullit ak fu ñu mën a nekk ak lu seenu làkk mën a wuute ak lu seenu melo yaram mën a wuute mu dajal leen ci benn barab muy màkkatal mukarrama euh, loolu ci anam boobu aj màkka di cee nuru lool màggal Tuuba di cee nuru lool aj màkka moo tax taalibe yi fu ñu fi man di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew bu màggal gi jotee ñoom ñëpp seen xel day nekk day jëm ci Tuuba muy barab boo xam ne ñoom ñëpp a ko bokk buñ ko tuddee kenn ku ne gis ci sa bopp euh, mu doon ak sant yàlla ne ko sëriñ Mbàkke waxee sant yàlla bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag bokk tamit doon tamit luy waral leenu xeewal sëriñ bi ci giseenu bu sori tax mu ne e, dee leen ma santale sunu boroom yéen ñi nga xam ne sama mbégte seen mbégte la waxtu wu bis bi ñëwatee dee leen ma santale sama boroom sant ko doon jaamu yàlla gu mag waaye santale gi moom da ko waxoon noonu rek Euh, wax niñ koy de euh, niñ koy defee def ko ñu gis euh, bernde gën caa fees waaye ci ñi ko fi wuutu ak ci jisiinu gisiinu Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacke nekkoon ñaareelu ñi fi wuutu Serigne Touba jiite mbooloo mi ci gisiinam ci la fexe ba dajale nit ñi Touba ci dajam xew-xew bi muy mbir moo xamante ne daje boobu rek moom it dafa amaat beneen jeexitalu boppam waxuma la jeexitalu sant yàlla gi ci wàllu rooxu nit ki ak ci wàllu diineem yeesalaat ko pas-pas bi waaye ci wàllu jokkoo bi ci diggante nit ñi day am ay jeexit ndax yàlla xam nga ni bi mu bindee doomu aadama yi moom moo ko wax ci biir alxuraanu karim bind naa leen ngeen wuute ñii doon góor ñii doon jigéen ma def leen eh, ay giir yu wuute ñii ñuul ñii weex ñii yor kàllaama bi ñii yor kàllaama bi wuute gu fës a fës a fës waaye loolu lépp li ma ci jublu mooy ngir ngeen xamante mu mel ne wuute boobu lam ci jublu mu nekk luy jañ nit ñi ñuy gën a jegente di gën a waxtaan ngir gën a mën a xamante ci sunu biir loolu nag buñ ko xoolee màggalu tubaa day mën a euh, tax loolu jàppande xew-xew màggalu tubaa ndax daje da ciy daal di am bu daje amee dend am weccante xalaat am waxtaan am euh, xamante xalaat am déggoo am xamante daal ci juddu su ko defee yooyu yëpp nag di doon ay mbir yoo xamante ni day jëmmal waxi sunu borom jooju te bokk na ci li tax ñu wuute kon euh, du doon ni rek taalibe sëriñ Tuubaa yi ñi ko jàppe seen jëwriñ ñoom rek ñoo fiy ñëw waaye ñi nga xam ne tamit dañ koo safoo doon ay jullit ñoom it dañ fi ñëw ñeneen ñoo xam ne sax duñ ay jullit waaye nag ñoo taalibe yi ñoo am na luñ bokk ci mënee su ko séddoo donte suuf si la donte réew mi la donte àdduna bi la ñoom it dañ fiy ñëw su ko defee eh, ñi fiy ñëw ñëpp duñ taalibee Serigne tubaa ñi fiy ñëw ñëpp duñ ay jullit waaye ñëpp nag am na luñ bokk ndax nit ku bokkut kenn dara amul nit ku nekk ci àdduna ak fu fi mën di nekk ak dimension bu mu mën a am faw mu am lu mu bokk ak nit ñi benn mu bokk ak nit ñi pas-pas wala mu bokk ak nit ñi melaw yaram wala mu bokk ak nit ñi bëgg-bëgg wala mu bokk ak nit ñi suuf sumu dëkk ak yeneen ak yeneen kon yooyu yëpp nag luy tax ñu mën koo bokk ndax séddoo munta nekk ca jeexital kenn munta berul sa yow dong faj say aajo yëpp ca ca loxo kenn du ci dugg loolu mun ta nekk loolu nag la koy jàppandal daje bi xamante bi waxtaan bi rattaxal diggante bi yooyu yëpp day dem day am ay jeexit impact social boo xamante ni bu xóot la xëy na bu ñu ko waxtu bi gën a may dalañ ci gën a dugg waaye bi ci njëkk daal mooy xamante bi ci loolu day gën a jegele nit ñi ca euh, xam nga kumpa dafa baaxut lu nit ñi gën a soree gën a euh, njort di am kumpa di am ci kumpa fu mu installé wu fu mu nekk rek euh, yeneen mën na faa judd baraana yoo xamante dañu jàpp ne problème mën na faa am lu koy nuru fekk du problème ñàkk waxtaan moo fa am ca yu mel ni màggal Tuubaa gi nag day jàppandal waxtaan day jàppandal waxtaan ci diggante taalibe yi ndax dañuy soree ñenn ñaa ngi bitim réew ñenn ñaa ngi ci biir réew mi ñi nekk ci biir réew mi sax ñu ngi nekk ci ay gox yu wuute waaye bis bi day doon bis boo xamante ni bisu sant yàlla bisu def ndigal la dundal kii bi waaye bisu tamit jokk mbokk da ci daal di am boo ñëwee ña nga xamoon ne gën nga leen gis lu yàgg da leen gis fii ñoo xam ne xamoo woon leen woon xamante daal di jur beneen relation yu bees nga xam ne mën nañoo wax ne at mu jot boo ñëwee da nga yokk lu mu néew néew ci koo xamoon da nga gis lu mu new néew koo xam ne gëjoon ko koo gis am na ñoo xam ne ci téléphone ngeen daa jokkoo wala ci jumtukaay yu bees yi muy ay internet ak yooyu dangay dem ba gis jëmm ji am na yoo xam ne da nga leen naw ci wàllu jikko daal leen gis ci télévision yi di leen dégg ci rajo yi màggal Tuubaa day doon occasion nga gis leen teg leen bët léeg-léeg sax ngeen weccante ay kàddu su ko defee yu mel noonu nag day am ay jeexit ci wàllu dundeenu doomu adama yi baraana loo daa jortu ki nit ak loo daa foog amaana boo ko gisee Tuubaa ngeen toog waxtaan ngeen bokk añ wala bokk xéewal euh, di xéewlu rek yeneen day daal di judduwaat mën naa am yu wuuteeg yi nga xam ne kii xëy na buñ ci gënee euh, dem tuuti danañ gën a yaatalaat. Euh, jërëjëf sëñ Cheikh Mbacké Niang ci noonu ko xamle ci walu social kon day ni rek li borom bi nooy wax naan la in sakartum la asidannakum mu leen ak yokku ci côté bépp lañ koy xaare te yokk balaa mën a am rek fokk ñu daje euh, waxtaan yàlla indi gindeeku suñu diggante kenn ku ne mën a jariñ sa morom ci xeet bu mu doon ak anam bu mën a nekkee kon suñu mbakk Abdourahmane dafa mel ni kon ni ko suñu seex waxee sànq euh, suñ mag ñu baax ñi kenn du li tax euh, sëñ Fallou Mbacké woote màggal gi ñu koy dajee te ku baax kii doon ko santaane ñu koy defee ak fu mu mën a nekk mu santaane jullit yi daje ci benn bërëb kon yaakaar naa am na lu mu gisoon kon ci wàllu euh, màggal tuuba waxuma Sénégal waxuma biir réew mi waaye dafa mel ni kii am na beneen photo bu ñu wane ci bitti boo xamante ne euh, euh, askan wi war nañu ko bàyyi xel ci wàllu diine ci wàllu ñi nga xamante ne ñoom lañu ko seqal ban anam. la senegal war a taxawee tey ci munaasabaat yu mel nii ñu mën koo euh, améliorer ba nga xamante ni bitti bi dañu gis ne kat euh, wàllu euh, màggal Touba ak yu mel am na rol boo xam ne mu ngi koy suy ci wàllu islam ci bitti boo xamante ni ñëpp ñu ngi ci teg seen bët tey. waaw kay jërëjëf sëriñ Babacar xam nga sëriñ Cheikh Mbacke doon wax léegi. Mhm. diine buñ ko dundee rek mbir yëpp yéwén. su màggal gi àgg fi mu ne diine la fay wane ne buñ jaaree fi ñu war a jaar dunde ko nuñ ko war a dunde mën naa dox bàgg fu ne baax na ngir jamono ju ne waaye baax na yit ngir béréb bu ne xam nañ ne lislaam wàccutoon fii wàccutoon ci ñu mel nañu ne fii waaye mu demee tey ba am ci ay cër di ci di ko wooteel ay bis nit di bàyyi koo fu ne ci àdduna di wuy si dana wane ne diine dëkkul fenn kenn moomu ko yàllaa ko moom fukk ko gëm ne foofa bëre ba loolu mën nañ ko ci xamee muy lu am solo it am solo jàpp jàpp bañ rek jàpp ne day mel ne fa mu wàcce woon wala ñam wàcce woon ci ñoom wala seeni maam mbir mi seen mbir faaw dañ koy delloo ci ñoom déedéet pas-pas la aku dundit ku ne mën na ci raw ku ne sëriñ bu bi nak dox ci jéego yo xamne sunu borom fayal nako magal gi ngir ne raw na ci ñi bare bari ban doon bis bo xamne bisub yalla la ak luñu mëna wax nit ñang koy wuy ci wa yalla ci wuy ci kon diine mo wote bis bo xamne bo dikke yit it li ngay gis moy li serigne Mbàkke serigne Cheikh wax legi ay yu and di bokku li bokku di ko rafetal kon foofu it lu am solo la loo xam ne diine jariñoo na ko ci màggal gi man cee dajale ay doomam wane ci it ni diine jàmm la ndax mbooloo mu toll nii dajaloo benn barab ba tàggale ko jàmm rek li ñuy dundee am na mel ni mbokk mu ko mas seereel taalibe yi nekkoon ci mel ni réew ci réew Europe yi bu ñu wootee yi mel ni màggale kent yi police du fa jaar kenn du fa jaar ñu gis ne day ñëw coowaloo ba tasaaroo kenn du gaañ kenn ñu ne ñoom loolu jaxal na leen ñoom mënuñu am mbooloo mu daje noonu te xaañante wala gaañante amul lu dul ne police moo ñëw taxaw fa kon wane na ne diine jàmm la diine la joxe ne xajoo na ku ne saa bu fi nit ñi dajee kenn ku ne yaa ngi ànd di dund lii li Serigne Cheikh Mbacke wax ne du du yëfi taalibe yi rek fu ne la leen di bàyyi ko ñi du ci jullit sax ñu ngi ñëw ndax seeni njariñ bu boo fi ñëwoon ngir yàlla yit ñëw fi ngir yàlla waaye lépp nag diine ci sago ndax diine ci taaroo ndax ku ku ñëw it woote bi diine nga wuy si donte gëmoo diine jooju woote diine nga wuy si boo fi jariñoo diine la jariñ te loolu bu yàggee mën naa defar leneen mën naa am sax nit ñëw fii yor yeneen yeneen xalaat yeneen gis-gis far doxe fi bëgg fi diine ndax teraanga yi ñu koy teral ak e, yaatal gi ñu koy yaatal liñ koy wan bu dee boroomam xel mu xalaat ni moom kat ñii bokkut ak ñoom te teewut ñoom loolu lépp xooluñ ko loolu daawa la bu am solo boo xam ne diin da ci jariñu lu mel noonu nag sëriñ Babacar bu amee ci béréb am réew ñay jiite réew ma wala ñay yëngu ci réew ma ñëpp ko war a jox bay bàyyi xel ndax daa mën a indil réew mi bari mën naa tax ñu gën a xam senegal waaye xamee xame xamee ko it ay ay jàmbaaram ndax nag réew mu ne bu sañoon waar ba ngay yëngu jàmbaar yañ ci am nit ñi xam leen te Serigne ci jàmbaar yi mag yi àdduna war a xam ci la bokk te xam gi ba tey nag fa mu war a àgg àggu fa ni ki nga xam ne ñun ñu ngi jàng fii di jàngal ay ñu mag ñu yàggoon dëkk ca penku maa ci yeneen réew yàgg sori mm-hmm. waaye bi su set ñuy gis lu bàyyi ko ci ñoom di leen xam ci ruux ak pas-pas Serigne Touba jaadu woon na mu àgg foofa ndax li mu indi woon lépp njariñ la loo xam ne ku ko xam danga ko bëgg danga ko jël te boo ko jëfandikoo yi danga nga loolu jàpp naa ne taxawaay yam soxla mooy tey ca mamlakatul arabiyya saoudiya tey suñ seen mbàkk doon wax ni màggal gi xëy na am na lu mu nuru aj ndax ay julli yu dajale dug aj te boroom jubluwutoon loolu waaye mbooloo mi fi daje nag njariñ yi ciy juddoo ak li ci julli ñi jariñoo ñoo nuroo mm-hmm. loola ñoom dañ ko xam ba waajtaay ca war yëpp yëpp la def mën nañu wax ne mooy xew-xew bi gën a mag ci àdduna buy xew di dajale ay ay nit ngir pas-pas bu jàllee dégguma wala ma ci leneen lu ci toll ni màggalu Tuuba day mel ne kon euh, woote boo xam ne tey diine mën na cee régler problème yëpp yépp ndax tey këri diine yi daje fii bokk di waxtaan ci benn tomb lépp lu ñor soxal jullit yi mën nañu fa waxtaane mm-hmm. bu ci kilifa yi déggoo teg ca lañ ca war a teg jéego yi ca war a teg ñu teg ko ca lu mbir moomoo jafe-jafe mën na saafaraw te loolu xam nañ léegi-léeg dara xew kàddu yi jib fii rek moo koy saafara ndax boobaa day mel ne kàddu umma bi moo fi jibadoo du rekk ay benn benn nit wala menn mbooloo waaye day mel ne ñi fi teew ñëpp dañoo teewal julli ñi ci des te sëñ Babacar li mu wax sànq moo di ne nit ñi ñaaree ñi bokk ñoraan teew suufiyanke yi beru def seen yëf eh, ñeneen ñi beru def seen yëf waaye fii na ñëpp fi teew ay suufiyanke ngi fi ay salaf yoon a ngi fi ay pas-pas yëpp ngi fi te boo leen fekkee ci jataay yi doo leen xamee loolu mooy wane ne suñu dundee diine mhm. eh, wuute gis-gis yi waruñoo xàjjale ndax li ñu boole mu ëpp tubaa nag day jëmmal loolu day jëmmal ni li ñu boole mu ëpp kon suñu dajee war nañu mën a waxtaan mhm. saa bu ñu dajee mënuñu waxtaan rek ñun la waaye du fi dii loolu nag boobaa taxawaay yu mag mag lañ soxla ci wane ci wane ci image su Sénégal ñu xam ne diine moom ñun duñ ay tuubin ni ko ñeneen ñuy waxee tuubin mooy koo xam ne boo baayam doon duggatul ci diine waaye fii koo fi lim li ngay lim ci ay maam door a génn diine yi boo demoon ci naar ga boo ko limee génn diine yi kon diine day jàpp ne ci sun ndono la bokk ci sun ndono la bokk ñu war a sàmm loolu bu ko bu buñ ko xamee xam ne kon masalan tey lii xaw ñu ne màggalu tubaa ak fête nationale la bu yàgg la war na am ndax bu ko doonul ci ay kayit it naka jëkk doonoon na ko bu fekkee ne fête mooy bis boo xam ne nit ñi duñ liggéey dañuy bàyyi seen liggéey dajaloo ji fenn loolu moo doon am ñi màggal si bu sax dañ daan ñaan dañ daan ñaan permission dem dem toog seen i kër di seetaan wala bu ku mën a ñëw ñëw wala nga def sa ngay def kon euh, lu mel noonu nag àq jooju boo ko nosee lañ koy jariñu moo taxawaay yooyu nag. bi ci des euh, bu ci bu ci bu ci bu ci réew mi jariñoo ci génn image am wane ne diine lislaam jii kat kenn ëppale wu ci ab cër am nañ ci ay jàmbaar yoo xam ne def nañ ci lu ne dana wane ni njabootu lislaam nag nekkuñ fi di xeex ak bërëb boo xam ne boo fa demee fekk leen ñoom ñëpp dana wane it ne euh, lislaam jiñ indi di ko dund noppi nañ ngir yóbbu ko fu ne ndax màggal gi mi ngi mi ngi ñu ngi koy def fii mm-hmm. waaye ñu ngi koy def ci àdduna bépp fi ne mboolem taalib boo xam ne mënta màggal si fañ nekk ña ngi fay toog di daje di def li ñuy def fii te weesuwut sant yàlla di togg ay ñam di ko jox nit te yonent alayhi ñu bàyyi xel bañ ko laajee lislaam lu ci gën ñaar la waxoon te ñaar yooya mën nañu wax ne euh, mooy li ñuy wax nii dafa waxoon ne joxe ñam ak nuyoo xëy na loolu sëriñ Cheikh Mbacke ci tom bi waxtaanee lay gën a fese ndax loolu lépp ci social la mm-hmm. joxe ñam ak nuyoo ayul islam yi xayrun lañ ko laajoon mu antu tama taam wa tusalli wa tusallim ala man arafta wa man lam taarif lolu nak jëm na fi ci dëkk bi liñ fi mana nit ñi nga xamne ñi ngi ñew di fi jaru si eh, di di xewali fi am nga xane bar na ño xamne ñen ñi sax dañ koy wax dañuy sant ndaw melni seigne babakar di wax ne bu ñu dem tuba mom dañuy xifal ndax bu doo yàq sa bopp daal ginnaaw fa nga fa nga jëm moom boo demee loolu lu rëy la tey ñu di def ci turu diine nag li ci am solo mooy turu diine la mhm. mu leer na diine moo la teral loolu bu yaatoo ñu fexe ba tasaare ko ci àdduna xam ne Sénégal am na lu mel nii lu rëy lay doon su boobaa nag njariñ li dana gën a yaatu dana ubbi bunt yi ñeneen ñëw te ku wuy si wooteeb lislaam barab ba mu jaar barab ba dana ci am sharaf mhm. te mën naa doon loo xam ne ñu bari danañ ci xamee lislaam buñ dikkee nangoo ko fi mhm. ndax xëy na image am ci yeneen barab am na lu mu laxasol ba tax ñooñu duñ ko gëstu sax waaye boo dikkee fekk fi mbooloo mi jàmm ji xéewal juboo gi àndandoo gi nga laaj leen ñu ne ay jullit lañ loola mën naa tax nga ne ah diina ji kat xemewu na te lislaam noonu la doon daawa lan moo tax al muallafati bu ñëw ñoo xam ne du ñu jullit sax nga mën leen jox ci asaka ngir bëgg ñu dugg ci diine ji ndax diine njub la yàlla dafa bëgg nit ñëpp njub nit ñëpp mucc bu ëllëgee te li tax a mucc mooy nga dugg ci diini kon lépp looy def ngir nit ñi mën a dugg ci diini am njëriñ te màggal gi mën naa représenté loolu mën naa doon euh, min bar bu ñuy wootee la yàlla ci lislaam gi loolu état war koo xam bax ci jàpp ci waaye di ko sànnee noonu fu ñu ko defee fërim bàyyi ko xel xam ne du rek ab communauté ci réew mi ñoo koy def ma màggal gi doonul alali murit comme ni suñu Cheikh Mbacke waxee du du ne ay murid ñoo fi ñëw kon du alali murid maanaam ndonol loo xam ne tey euh, du ma wax Sénégal yi waaye jullit ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk juy ba dëkk ci penku te xam liñ fi dafit moom moo ci sagu yéeg ne lislaam am na bis tey ña ngi fay daje nit bàyyi ko fu ne ngir dundal loolu loolu am solo la sëñ Babacar jàpp naa ne euh, baraka la sëñ Mbacke Abdourahmane ci leeral yu am solo yu nga xam ne leeral nga ko ci màggal Touba fi mu toll ak ni mu doxee ba yegg ci bitti Euh, mu mel ni kon dafa am loo xam ne dañ koo bokk te mënuñ koo séddoo muy diine euh, diine nag ko mënuñ koo séddoo li ñu li ñu bokk nañ ñëw ñu bokk ko yi ñu wuutee kenn ku ne man caa réservé moroomam muy lu am solo loo xam ne gis nañ ne euh, taxawaay bu am solo la waaye si Cheikh Mbacke su fekkee si sëñ Mbacke Abdourahmane nee na wàllu diine kenn ku ne gis na ci boppam sëriñ bi woote na ko ba mu yàgg na dem na ba nga xamante ne àdduna fépp fu ñu toll bis ni tey ñu ngi ci màggal àdduna bi foo mën a nekk tey ñu ngi màggal bis bi nga xamante ne mooy euh, taxawaayu sëriñ bi ci màggal ci màggal gi euh, ci wàllu social nga xam ne euh, fu ay nit nekk dañuy jariñante fu mbooloo nekk kenn ku ne yaa ngi jariñ sa moroom nga xam ne mënul ñàkk mu dem a dem ba mu jàgg waxuma la waa Touba waxuma la waa Sénégal waxuma la àdduna bi waaye léegi ñëpp ci bokk yam léegi lu ne mbir yi rek ñoo ko moom lu mel noonu wàllu social bi nan naka la ko état war a protéger ba kenn ku fi ñëw mën a am xel mu dal ba la nga fi mën a jëlee nga jëlee ko fi ci wàllu njëriñ te état mën ko protéger ba mu mën a delluwaat ci anam yoo xam ne réew mi dana ci bénéfice baax a baax. jërëjëf Serigne Babacar euh, dafa doon loo xamante ni euh, màggal gi ci wàllu wàllu social bi mooy wàllu jëflante bi diggante nit ñi. dafa dafa xóot euh, ndax li ci wax nañ ci ci tàmbali bi xamante bi ci mën a juddoo. Euh, waaye yemut ci loolu jokkoo bi mu ngi ci te jokkoo ci jamono jii ñu toll dañ naan àdduna bi daanaka jokkoo moo ko yor fu mu nekk nii ku la gën a gën a taxaw ci wàllu jokkoo muy communication moo lay ëpp jeexit ci doxinu àdduna bi euh, moo tax ku bëgg a feeñal say mbir yu nekk bëgg egg fu na bëgg a gëmloo nit ñi la nga nekk eh, mënoo koo ñàkk a jaar ci jumtukaay yi mm-hmm. te yooyu day gën a feeñ fii euh, su ko defee boobu yooyu tamit day am jeexit ci wàllu nit ñi dañuy wax jokkoo diggante nit ñi mi ngi mel ne ci ay jeexitam mi ngi mel ne pièce ñaari weñ yuy jonjoo su amul diw guy rattaxal diggante bi da ngay gis ay ferñeent di di di di tàkk di génn euh, mooy ni euh, kon jokkoo diggante nit ñi mooy amortir mooy tax jafe-jafe yi war a mën a am diggante nit ñi di di di dañ ndax bari na ci yoo xam ne léeg-léeg ñàkk xamante koy waral bari na ci yoo xam ne ay njortu la waaye bu waxtaan amee rek yu bari feeñ su ko defee kon loolu day fay day mel ne day fay sawaraaf sawaraas ñàkk ñàkk woo ñàkk eh, sawaraas ñàkk wóolonte sakar sawaraas kumpa ak yeneen ak yeneen euh, jokku mbokk tamit mu ngi ci te jokku mbokk xam nañ wàcc waayam ci biir lislaam lu ama ama ama am solo la ba euh, euh, rahim sax yàlla bi mu sàkkee bi mu bi mu ko sàkkee euh, aw askan bi mu sàkkee doomu aadama wala boog bi mu sàkkee rahim bi dafa mel ne daf ne yëkkat jooy ni ñu koy waxee ndax xam ni dana jafe ca ba wutut ñu bare duñ ko def mu mu mu jox ko garanti ni ko boo demee ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog ko su ko defee yooyu ay mbir la yoo xam ne sëlatu rahim mu jokk mbokk da ci am ca jokk mbokk nag moom njariñ njariñi neen la moom it ndax Euh, dafa doon loo xamante ni euh, euh, Serigne Saliou Mbacké wala sax diine lislaam rek moo ko wax mooy ni jokku mbokk day waral gudd fan day waral yokku wërsëg day waral yeneen ak yeneen su ko defee loolu njariñ la jokku mbokk googu nag du diggante taalibe yi rek diggante taalibe yi ci seen bopp ak jokku mbokk dañuy kii ndax këj a gisante diggante taalibe bi ak sëriñ bi mm. diggante sëriñ si ci boppam ci bokkuñ wenn yoon mm. waaye diggante sëriñ si ak ñu yor kilifteefu àdduna gi tamit jokkoo jokku mbokk ak waxtaan da ciy daal di am ndax mbooloo mi ñoo ko bokk kilifa ak diine gi ak kilifa ak àdduna gi ñoo bokk menn mbooloo mi kenn béroowut ak mbooloo boppam su ko defee buñ comme que ñoom ñaar ñoo seq mbooloo mi njariñal mbooloo mi lañ wax ne moo tax ñu nekk fi faaw ñuy waxtaan ci seen biir màggal ak Tuuba occasion la pour kilifay diine yi di waxtaan ak kilifay àdduna yi ngir njariñal mbooloo mi su ko defee loolu lu am solo la euh, euh, léeg joxe lekk ak naan te yàlla rek tax fii la samp fii la samp baax nga xam ne ki koy def ci boppam mbégte la koy def te ñun ñi ñëpp xam nañ ne boo génnee fii donc service bu ñu la defal da nga koo fay boo demoon ci bu hôtel service bu ñu la defal da koo fay bu dee fii nag da ngay gis ay mag magi jëm ay kilifa sax léeg di la ko defal ci xitma eh, ci ci ci wàllu gëm-gëm ak ak mbégte lañ koy defal ngir yaakaar ci ngërëmul yàlla loolu eh, bëriwut fu mu am furul fii màkk gay ñuy wax boo demee boo kee da nga ko jënd su ko defee bala ngaa dem da ngaa réserver sa hôtel day mel ne sa poche ngay jiital balaa ngaa dem fekki ko bu dee Touba nag boo dee ñëw da ngay ñëw ak sa say bagage dong kër goo njëkk jot wàcc ca ba noppi ñu lay liggéeyal te yàlla tax ci am ci mbégte lool nag su ko defee loolu lu ama am solo la lu nguur gi war a sa war a sàmm la waaye tamit saxal jàmm ci la ndax koo ji koo ji teraanga teraanga la lay bëgg a fay ñuy màggal si ñu ji leen teraanga fii ci Touba te mësuñ leen a xam te yàlla tax ak sëñ Touba ñu di ko ñu yàlla tax ak ngërëmal sëñ Touba tax ñu di ko def ànd ci mbégte lool di génn suñuy nekk di leen bàyyi di leen jox aw ñam te léeg ñam bi ne xas bañ koy génne ci mbedd mi su ko defee yooyu yëpp koo ko defal bu ëllëgee yàlla dana ko xiir ci biir Touba yàlla dana ko xiir ci waar Touba ak ci njabootu sëriñ Touba gi su ko defee yooyu tamit day indi jàmm ci biir askan kon gis nga ko xamante dana jur xamante dana jur jokku mbokk dana jur jokkoo dana jur liggéeyal sa moroom doomu aadama te yàlla tax xaaroo ci moom benn dërëm ci jamonoy matérialiste bi ñu mat jamono matériel bi ñu toll. nga xamante ni intérêt rek la. boobaa day effacé wu. boole kook nag indi jàmm loolu nag bu amee nguur gi da ko war a taxaw. bu baax a baax léeg-léeg dund bi muy indi Tuubaa ak wala courant bi muy dolleek wala ndox mi muy kii yooyu yëpp ay warteef la. ñaari nit yu nekk mbooloo mu nekk fu ñu daje bu dara xewutoon tamit da leen faa war a fekk ak ndax. nguur gi ñun ñoo ko fi teg suñuy alal lay defee loola nguur bu doon toonu ñun moom amut euh, amut du am benn maanaa bu doon toon suñu alal ji ñu daje mu comp ci man comp ci comp ci keneen jël ko du mën a def dara kon bu boobaa nag loola muy dajale ci ñun fu ñaari nit ak ñett daje da leen faa war a fekk ci kaaraanga war leen faa fekk ci ci li ñuy soxla woo lépp ci wàllum paj ci wàllu lekk ak naan ci wàllu yëpp su ko defee yooyu nguur gi da ko war a ki ca ca digg na économiste yi di wax ni économie bu nekk koom-koomum réew la koy doxal mooy bu production de amee tamit consommation nay am. ca Touba jamono bi ñu fiy nekk rek li ñu fiy jëfandikoo macha allah ci domaine boo boo laal bu waxtu bu yaatu woon danañ gis ni euh, macha allah ci domaine yëpp. foo laal day mën a foofa rek la su ko defee yooyu kon day incité day soññ wàllu consommation bi ci loolu day gën a jëmal kanam koom-koomu réew su ko defee kon état bi wala bu du dara ci wàllu pas-pas sax waaye wàllu njariñu réew mi rek li fi ñëw ci ci kii ñi jóge bitim réew di indaale koom-koom ci biir réew mi ci béye avion yeeg ci yeneen ak yeneen su ko defee yooyu war nañ ko taxaw kon daal euh, xëy na waxtu yu ma xat sëñ Babacar jërëjëf sëñ Cheikh mm. euh, ci leeral yu am solo yu nga xam ne moom nga def ci wàllu taxawaayu état bi ni mu war a taxawee ba sécuriser ñi nga xamante ne ñoo ñooy ñëw di pèlerin di ci Touba euh, sëñ Bakk Abdourahmane tey fekkoon ne am nga looy conseil suñ mbokk yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi te ay julli di jóge fu ne diine ñor leen ak mbokk diine ñor leen ñu koy xeñtu ñu ñëw Touba ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk si bañ taxawaay la ñu war a teeroo suñu gan yooyu mooy li war ab julit ci mbokkum julitam mhm. war ab julit ci gan gu ko seet si war war ab julit ci bu dajeeg mbokk mu am aajo mhm. lu ci nekk lislaam santaan nañ mbokk dafa ko daf ko ne sa bopp mhm. ku am aajo ku ne taxawu ko ndax man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunia faraja allahu anhu kurbatan min kurbil ah yawmal qiyaama kama qaala alayhi salaam kon taxawu ndax it nag euh, ñi ne Tuubaa ñoom am nañ tawféex yi ñoom la nit ñuy fekk si mhm. kon mel na ne ubbil nañ leen buntu mën a am yiwu bari yiwu bari yiwu daf lu baax ci sa ci ci jaam ñi maanaam jaamu yàlla ci jaami yàlla yi mhm. ci dalal leen bernde leen yombalal leen liñ bëgg a def mhm. moom ñoom passé boobu ñu am mën naa am ñi ñëw sax amuñ ko ndax nit ki moom man na ñew daf lu baxam ak ay ziaram waaye yow mi nga xam nak lu mu fi ñoo ci yow la jaar yiw woowa jullit bu ne war na ko fëgg fonk xam tay tey sa néeg bi ngay genn sa ñam li ngay li ngay genn ci sa jibo diko di ko daf ay bernde dara sanku ci dara sanku ci na li ñuy tuddee peine perdue amu ci ndax inna allaha la yutiu al muhsinin sa bu ko nit ki yëgee lolu te serigne Saliou Mbacke radhiyallahu anhu ko wax wané ne li sëñ bi joxe santaane woon ne ku koy fonk ñaar ñu denn kenn ki fonk kenn ki fonk ko danañ xam ne ñu wute day wane ne kon ñooñu ñu ñëw ci dëkk bi ñoom am nañ warugar woo waaye am nañu wenn warugar nag mooy warugaru xam ne ñoom dañuy wane yoon wi maanaam bu ñu leen seetsee fekk si leen lenn lu daqoon teeg jàngalay borom yoon yi wërte seen kër waruñu ko jëflante nit ndax ci ñoom la nit ñi buñ delloo ci lañuy wane yoon lu mel ku dajeeg am ndaw kunda mu bàyyi ceeb ak na mu ko fonke woon yooyu yëpp jox ko mhm. bu demee dañ ne ah ñu baax lañ ndax gis naa fa ñu bëgg ceeb waaye li ñu koy bëgg bëgg ba mu dikkee maa leen ko gënal loolu jàpp naa ne maa ngi koy dénk sax mbokk di ko dénk mbokk yi di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex sëriñ Babacar euh, jërëjëf macha allah suñu Mbàkke Abdourahmane suñu euh, seex comme ni ko suñu Mbàkke Abdourahmane waxee ci wàllu social nga xam ne léeg-léeg ay gan danañ ñëw ak dëkk bi ni mu bindoo léegi du ñàkk ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund yoo xam ne mi ngi leen di xaar ci terrain bi looy laa biire suñu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk biir Touba nu ñuy jàppale mbokk yi ba seen jafe-jafe yu wàññeeku. waaw loolu euh, li may li may may soññ sama bopp rek ci laa leen di soññ ñoom mooy ni euh, wàllu def lu baax. Mm-hmm. la cay jiitu mooy nga def ko te yàlla tax. ñun ay jullit lañ ca euh, dañuy ñaan yàlla di nekk jamono bu nekk ay jullit. Mm-hmm. jullit nag la koy wuutaleeg keneen ku dul jullit mooy ne lépp lu muy def na ci jiital ngërëmul yàlla leneen lu ko ci fekk fekk ko ci. kon gan ñiy ñëw ak ñi fi nekk doon ay dëkkandoo yëpp ñuy xajoonte ndax nag jëflante bi dafa xaw a jafe léeg-léeg. Mm-hmm. Euh, yilif sa kër nekk fa yow dong jékki mu fees dell amatoo fa sax lal boo tëdd yooyu dafa xaw a jafe waaye yooyu yëpp mbégte mi ngi ciy àndal ak ngërëmul yàlla mi ngi ciy yaakaar euh, loolu dana koy gën a yombal su ko defee nag wàllu ay lekk ak naan ay njookook ay yooyu yëpp tamit ginnaaw bi ngir yàlla gi weeso euh, weesoo ñu war ko caa jiital waaye ñu gën a fonk tamit wàllu cet gi wàllu wàllu cet gi ndax jamono jii ñu toll moom ma euh, yàlla nañ ci yàlla musal mm-hmm. am na ay musiba yu ñuy wax ci àdduna bi mm-hmm. yooyu ñu ci bare sax ñi nga xam ne biir àdduna rek lañ gëm sax dañuy tiit ci yenn ndaje yi su ko defee kon ndénkaan yooyu nga xamante ni nguur gi joxe woon na ko mm-hmm. yooyu tamit ñu gën koo fonk ci wàllu cet gi ci set ci yaram set ci barab yi set ci loxo set ci yére yi set ci li ñuy lekk naan su ko defee tey boole ci nag ñaan yàlla moo mu dimbale ñu su ko defee kóllëre gi tamit ñu koy gën ci sàmm euh, suñu digg ak suñu biir ñu nit suñu bopp waaye suñu digg ak ñeneen ñi nga xam ne ñu fiy ñëw su ko defee loolu ñu xam ne daal gan dafa am àq àq jooju nag yàlla moo ñu ko ci sant ñu war koo sàmmanteel ñu koy def yaan ñaan la mu may ñu ci ngërëmam ñu fekkewaat ko ay ati at ci jàmm ak salaam wasalaamaaleykum wa def euh, mbokk yi euh, tomb bii lañ leen indi woon tey mu mu mu tege ci wàllu diine ak wàllu social ñu àndoon kook suñ ñaari mbokk yi nga xam ne mu ñoom lañu ñu rawdu rahin boole loon tey muy suñ mbàkke abdourahman ak suñ seex mbàkke ñang inspecteur kon ñu ngi leen tàggu ba ci kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa